xam ne man man bon dafa am loo xam ne pour man loo def pour sa réew jaratut wax dama lay jox sama cas man rek te yaakaar naa wax ji moo tax ma di ko wax man 2018 mhm. laa njëkk a nuyoo ak Sonko hôtel Pullman temps boobu maa ngi parce que man dans un premier temps bépp xeexu démocratie bu ma ci ki mas nga ma ci fekk muy depuis 2013 maa ngi ci jàppale Karim bi ñu doon jaay doole ba mujj ma jiw ma nekk PDS réccu ko trop après mujj bàyyi mais avant may bàyyi fekk na ma nuyoog Sonko en 2018 mu ñëwoon Pullman di jàppale si avocat Karim ci laa jox moom loxo ne ko parrainage bi ñuy def pour éliminer leen yéen parti yi te ma gis taxawaay bi Ousmane songo commencé woon di am kon man du ma parrainé du ma parrainé sama parti yow laay parrainé mu ne ma sëñ bi yow waxi gor rek nga ma wax. yàlla xam na ko mu ngi image yu koy wane fii ba 2019 awma candidat mais juróom ñi fa nekkoon maanaam ñeent ñi fa nekkoon ak Sonko awma fitu sama ngor mooy ma ànd ci kenn pour Sonko te pourtant am na ñeneen ñoo xam ne su sopp doon am ñaar ñoom ñoom laa gënoon a sopp ko Sonko ci jamono boobu muy Issa Sall ak Idrissa Seck mais wóoluwuma leen ni ma wóoloo Sonko maa ngi wax ci médine Dieng dana ma dégg campagne boobu li ma ci def jege na un million entre sama essence ak meeting bu ma doxal def sama mouvement pour teg ci déjà bi may bokk rek temps boobu ñu nekk euh, mouvement parti politique yaakaar naa un million lañ doon joxe mouvement yi ñoo doon joxe quatre cent mille jarul lii mooy indi lii pour wax ko man euh, Ngagne Demba Touré fàttaliku loolu man léegi bokk naa Pastef donte ne yàggut mais pour ma fàttali loolu rek. Ah, nekk ci ba deux mille vingt et un deux mille vingt et un maa ngi nekk convalescence ma tànk accident kaan laa ànd ci biir euh, xeex bi kaan maanaam ñetti tànk laa yoroon moment boobu nit ñi comprendre dañ pour nit ma wax sax ba nit jàpp ne woon jamono du ma Pastef sax jafe na sàkku ko ci man nag 2019 ma ñëw élection yooyu ba tey ma ma ma wax ci Cheikh Thioro ñaari centre maa leen contrôlé muy Daar Rahman ak Pofdy teg ko te di def rotation ba deux mille vingt et li fi am ak comme bépp sénégalais boo xam ne dangay ngay xeexuma pour Sonko man dama xeex pour démocratie Sénégal boobu mais Sonko nekk jëmmal ko am na ci ay doomu Sénégal yoo xam ne tey parce que dama jàpp ne bu dee euh, don de soi la pour la patrie ñëpp la war que du doonoon Pastef wala nangam mais jékki-jékki nañ taf fi Pastef amatoo kan mooy Pastef ak ku dul Pastef ay nit taxaw ñëpp bokk ci yam di défendre ngañ dem ba trop benn instant moom dafa laal dafa gàddaay dem. am na fi ñeneen ñoo xam ne non seulement dañoo dem déggatoo leen comme ku mel ni àjjuma sow am na foo xam ne du ci yegg sax ci wax yoo xam ne wax na ko man yu ma xam mais pour wax rek euh, nañu respecté ñëpp man damay xool ki nga xam ne maanaam mi ngi ànd ak Sonko jox ko cër. di ko guddil di ko bëccëgal même bu fekkee ne bokk ci man dama bokk mais damaa bëgg wax joo xam ne même bu dee dañoo taxaw di wax na wax ji rafet parce que am na nit ñoo xam ne tey benn Cheikh Ousmane Touré bokkul Pastef ku comme bu doon Saa Wolof Dame Mbodj Cheikh ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne sax ñi ngi wax ci presse bi même waxuñu sax pour kii mais dañoo wax te dëgg tax ñooñu suñ leen joxee mbir mbir mi dama yaakaar du pàccoo Sonko waxoon na ko nag ci local 2021 yi bi mu amee ay waa Pastef yuy jóg mu ne leen yéen nii ngeen mel am na waa APR yoo xam ne sax meluñ nii booba lii la xamoon lii la doon wax lii dafa teel trop beneen bi muy li nga xam ne moom la Abbas Fall wax ni mu ko waxee laa d'accord parce que bu dee nit ki dafay euh, li ñuy wax dafa am codisation ak tontine am na ñoo xam ne dañ doon tontine mooy li wolof di wax teg ak natt am na nit ñoo xam ne dañ doon teg mais am na ñoo xam ne dañ doon natt ñi nattu nag ñi ngi doon xaar ñu sotti mooy lu ma ci am man li ma def nit mënumaa jox post ba man maa dab li ma def boo ma xañee post su ma naqaree du ma gor kon yàlla loon ma koy def Sénégal taxuloon ma koy def gis li ci Ousmane Sonko bu nekkoon ci Ngagne Demba Touré du waxee nii mu waxee ci désolé nag parce que xeeb naa ko ci ci ci ci ci wax démb li mu wax mënuma mënuma frustré parce que man suis dedans man dañ ma daan wax sama sëriñ avant muy gaañu boo woowee Cheikh Thioro mu wax la ko yegg na ci ne ma demal Pastef waxal Cheikh Thioro ne ma ne ko man ni ma jàpp ne sama efficacité sax jàpp naa ne mi ngi nekk ci bitti Pastef bu ma duggoon sax ni ma efficacité ci xeex bi du ma teg te yàllaa tax may xeex bu Sonko ñëwul woon damay am problème parce que bu Sonko ñëwul woon xol bu dagg laay am man il faut mu am benn leader bu mel ni Sonko taxaw Sénégal ma mën a soulager wu nee naa la maa Macky Sall depuis 2013 maa ngi ci di combattre ak moom lu ne dig nañ ma ko nag utuma ko gis nga bi Mélenchon ñëwee man jàppoon naa ne bu élection yi passé damay noppalu gis nga avant élection yi bépp presse muy yéen ñi ak keneen ak keneen ak keneen yéen laa wax de yéen yéen ma mas a taxaw di ma rémunérer ci ne ma boo ñëwee émission nangam ak mayow moo rus la mais ku ma ko mas wax dama ne la jëluma biñ demee ba président Diomaye falu ci laa doogaw ñëw ne ku ma liggéey looti da nga may fay raar am na ci nag ñu may dem parfois nga woo ma ma bañ a seer seer lu dem dañ may fay bu baax ma yor sama liggéey di ci nekk xam nga lu tax may def loolu parce que bëgguma taxawaalu ci buntu directeur parce que soxlawuma ko ñi ko daan def ci APR wala daan ko def ci PDS dama leen a xeeb dem ci ay nit di ko lobil wala di wax lu du dëgg wala pour neex nit ki mu di la jox dama di la maxar yàpp man liggéeyal liggéey pour Sonko projet bi soxlawul may gis Ousmane Sonko soxlawul may gis président Diomaye man su amee ku président Diomaye validé duggam ci biir Pastef mën naa ne man la bu amee koo xam ne président Diomaye validé na duggam ci Pastef mën naa laa wax ne man la xam nga nan laa la koy waxee ah. dama ñëw en deux mille vingt et un ah. mooy bi ñuy def vacances agricoles patriotiques su ma juumut ma dem am benn waay boo xam dafa bokkoon Pastef temps boobu sax bokkuma Pastef mu war leen a jox ay matériel agricole discours ba ma def feeñ na ci mooy au la machines yi liñ ci mën a jëfandikoo transfert de technologie bu mu ciy xalaat moo tax waa ji moom xaw ma fan lay depuis quand la nekk PDS waaye discours bi may dégg nii waaw <laughs> li may dégg muy direeku di ñëw foog naa ne daal tari na ko ba mu makaru mbaax waaye jàng na ko ba mu makaru mbaax te mu ngi koy tari li nga xam ne mooy xam moo la validé voilà jusqu'à nag <laughs> ku ne wax na ma parce que man aw ma problème man soofu ma mhm. ñàkkuma xorom te man na maa défendre lépp lu may défendre même bu ma doon défendre fen sax mën naa ko mais damaa jomba fen mais ni ma jombee fen nag looloo tax même bu ma fareeg yow bu dëgg jotee dama la koy wax muy discours Ngagne Demba Touré di bu Abbas Fall hmm. benn la donte ne nag xam nga wax màccinu dimbu dina tax dimbu weex mais ni mu ko waxee dafa xaw a féroce de trop mën naa gën a rafet parce que dafa am benn coalition bu gaa yi nekk dafa am ay nit yoo xam ne xam nga tey man damay sant yàlla bi mu amee même ay nit nekk ci parti bi di inquiété wu parfois loolu mooy wane ne rek defuñu paacoo loolu dafay am lu muy wan sénégalais yi te am na sénégalais boo xam ne yàgg naa taxaw jàpp ne politique paacoo la suñ xasee falu seeni gaay la ñuy fal te seen wax yi ñuy wax nii mi ngi montré que ne ñi nga xam ne ñoo jiite projet bi euh, di ko doxal dañuy xool ki gën a man loolu mooy dëgg moo tax am ci ñoo xam dañuy nekk ci ci ci bitt di comprendre dama koy wax fii gis nga même tamit ñi nga xam ne muy influenceur mën naa ne mën naa ci bokk wala yi demee noonu euh, damay gis ku mel ni Bamba Niass barki démb dafa dem ci jamono yële am benn teen bu mu ne daf ciy def te yàlla tax na ci nit ñi di participer ay nit di ci partager plus de 400000 barkaati démb mu dem ba kaw Kaolack ndekete imaam Alioune Badara Ndaw bi faatu moom daaraam moo ñàkk ndox mu dem bënn fa teen ñu bënn teen ni ci def seen kii mu yéeg meeg soxna suñuy wax Lisa man dama jàpp ne tey. loolu la ñu am kenn ku nekk li nga baax baaxle nga di ko def nga dem ba mën a dem tey ku mel ni saawolof mën a dem ba daar raxmaan mm-hmm. may tey li ko yàlla may ci wàllu mbatit ak xayte culture mu di ko dem di ko jox ndaw ñooñu te projet bi tax gën leen bëgguloo projet bi foofu la ñuy taxaw mm-hmm. mais dama yaakaar bu ñu woowee nit ñi ba ñëw am na loo xam ne war nga ko wax te say allié bu ñu am problème man nag du ma allié dama cee bokk bi ma taxawee doonte ne yéex na nag mu leen neexee it amut problème ku mu neex nga boole ma ku mu neex nga jàpp ne kii mais man du ma defantu aw ma nag problème. di taxaw non voilà non pour wax la rek. ci li nga xam ne maanaam moom moo ci am man. Hmm. pour li tax nit di jàpp parce que taxaw naa fu nekk ne leen du ma Pastef moo tax sax nit di taxawaat naan kii du Pastef dégg naa ko keroog fekk ma wax dara ci sama xalaat ci kilifa. kilifa moom tax